Nous sommes au Sénégal et on sait fan la mujj ñaanuñu loolu mu am seen pour mu bañ am ñaaray tax benn bi doit s'affirmer comme président de la République bi Ousmane Sonko doit accepter de taire son égo pour que yëf yi dox. mais mais lan est ce que carrément. xam nga benn trop tôt. Euh, xam nga xam c'est trop tôt. mais vous constat bi ak audience yi ñu regardez. pratiquement toutes les audiences importantes le premier ministre est associé. rek on a reçu le président de la commission de l'UEMOA. Hmm président de la République ba il koy recevoir premier ministre mu à côté donc on a vu ça donc on sait que quelque part président de la République et premier ministre ils essaient de former un tandem pour aller ensemble maintenant ce tandem là lan lay il faut pédaler ensemble pour que ça marche mm. xam nga tandem moy lan moy vélo bi nga xamné ne dafay am ñaar nit yu ci toog loolu tandem mais pour mu dox ki nekk ci kanam ak ki nekk ci ginnaaw yéenay bokk cadence de pédale bu ngeen ko deful rek du maintenant aujourd'hui président de la république premier ministre on essaie de travailler en parfaite intelligence il faut le reconnaître maintenant ndax dina wëy ndax du wëy ñu ngi ñaan mu wëy ñu ngi ñaan mu wëy légui nak bu fekkenté nak dem nañ nak ba réalité pouvoir dab na len ba leneen am moy lolu le président conseil constitutionnel juñjon jomay ba muy prêter serment bam ko naan boo demee ba pouvoir réalité pouvoir euh, euh, dab la ba ivresse pouvoir dab la bul fàtte yow sa palum njiitum rew loxo yalla kesse mo ci ne kon nak buñ demone ba lolou dab len parce que c'est humain ah hein, maag yow buñ bokkoon ben bureau di liguey mm. mën na am ñu mbëkkante mm. mais buñ demone ba lolou dab len bu ñu bu leen bu ñu fàtte naka lañ falo okay lolu rek moy si wax mais en tout état de cause. Hmm. on espère que ça marchera et on le souhaite. Hmm. Sonko xaaroo ko poste est-ce que jàppoon itam. non pas xarumako non pas xarumako dama il a le choix là. il a le choix waaw. Euh, mais mais mais gouvernement bu gouvernement bi. non bon man pour man il avait le choix d'être dans l'ombre de Diomaye dans un premier temps. mais fait qu'il y a y a il y a justement des ces urgences et que Ousmane Sonko sera comptable de son bilan. mais même même même Ousmane Sonko hors du gouvernement il est comptable du bilan de Sonko de Diomaye c'est pas besoin d'être dedans ou dehors parce que dans le sénégalais yi Diomaye président mais Sonko collègue ñu fal loolu mooy lu am. Hmm. ah ba ñuy dem campagne lu ñuy wax Diomaye mooy Sonko. Sonko moy Diomaye Sonko wax ñu lool wala wax ñu lool hmm. wax nañ ñu Sonko dem campagne d'un côté Diomaye dem campagne d'un côté et voilà kon nak sénégalais ils ont élu. Ousmane Sonko à travers Diomaye. Hmm. kon Sonko sera comptable de tout ce que Diomaye fera C'est ce kenn peut ko alors euh, bataille tey ñu daal di justement Bachir après euh, ces euh, tête à tête justement il y a aussi les premiers actes de Diomaye Nous mm-hmm. mu tout d'abord par ordonner. Euh, la publication des rapports oui. euh, IGE euh, euh coup des comptes ak li nga xam ne que mhm. mais est-ce que rapport est une surprise là, quand on sait que ni euh, bu année 2019 voire y li nga xam 2021 mi y a déjà cet espace public exactement mhm. comment le comprendre et aussi comment analyser li nga xam ces premiers actes de Diomaye aujourd'hui <coughs> rek tey rek OFNAC génne rapport 2023 aujourd'hui mm. tey tey mm. man ba may ci yoon bi rek rapport 2023 OFNAC tey voilà donc euh, il a une une semaine passée rapport OFNAC 2022 mm. mais déjà 2019 2020 2021 c'était sur la place publique voilà sais que le président Diomaye man parler de publication de rapports, c'est de la distraction et je continue à le dire distraction oui c'est une demande oui mais bon écoute le problème c'est pas les rapports c'est la suite des rapports nous xam les tenants et les aboutissants. mais le rapport bi génn ci mbedd du du du mais ñu xam rapport. non mais le, la waaw mais attends Macky dafa fait ku dem yow tu es sûr que Macky dafa teg ku dem wan ma ba rapport bu Macky tegoon ku dem est-ce que tu peux me montrer un rapport que ou Macky mis son mais nous ñu révélé ci Mamou Diallo 94 milliards yi. lan la ñu révélé. mais euh, qu'est-ce qu'on a révélé par rapport à Walou foncier qu'est-ce qu'on a révélé dans les 94 milliards. ce qu'on a dit c'est différent de ce que Sonko avait dit au moins il faut le constater. wàllum escroquerie. Sonko dafa ne dañoo sàcc Sonko a dit on a détourné 94 milliards. Le rapport de l'OFNAC est sorti, n'a pas parlé de détournement. Kon nak révélé amul. Hmm. Ce que Sonko a dit sur le rapport n'existe pas. ça ne veut pas dire que amul lu nekk rapport mais le Sonko que tu donnes il faut le constater. Mais il y a des faits. Mais oui, mais c'est ce que je t'ai dit. Le Sonko waxoon ni moo am ça sàcc 94 milliards rapport bi waxul donc plainte Sonko bu 2018 de aboutir à toutes ces révélations non mais non non j'ai pas dit c'est-à-dire ah. c'est-à-dire euh, il faut non non attends attends non attends def quel est votre problème des fois voilà c'est un gros mensonge est non mais taxaw fofu ba paré dañu taxaw né dafa taxaw teug radio yépp né Sonko mamou Diallo dafa rapport bi génn Diallo kon loolu dañ koy wax ba hmm. buñ ko waxé ba paré nag ñew ci lu rapport bi wax rapport bi nee lañu doon def bu antu won xaalis dina dem mais antuwul mais pas lañ leen ko si topé tentative d'escroquerie mais kon léegi lañ leen tap nañ leen atté motax je may la c'est parler de publication de rapport c'est de la distraction parce que rapport yi lu ci nek génne ko tay ji ni rapport nak bi génn ñooñu ne nañ leen poursuivre nañ leen poursuivre parce que wax ji on avait reproché à ce pouvoir de ne pas avoir donné des suites à ces rapports. Hmm. Donc il ne faudrait pas que ce pouvoir aussi vienne nous distraire avec des publications de rapports, alors qu'on les attend sur des suites à donner à ce rapport. Donc, ce qu'on xaar ci ñoom mooy ñii nga un ay rapport tudd ce qui nañ leen a poursuivre bi rapport IGE yow mënoo ko yor man mënuma parce que ku ce a ce rapport IGE xam nga page de garde mm. ce rapport est exclusivement destiné au président de la République quiconque en est le détenteur qui qui qui qui le possède sans en être le détenteur s'expose à des sanctions pénales. kon rapport boobu pour nous mën publier il faut un décret de déclassification kon président Diomaye la muy laaj moom moo ko def c'est ça la distraction. mais mën nañu d'accord si benn côté. que ni donc. a euh, justement a mis euh, son coup. Non, je suis pas d'accord. Non, non, non, non, non, non, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Hamolda. Hmm donc le programme déclassifié non non non non de déclassifier le rapport c'est le rendre public. ok waaw waaw on peut poursuivre Bachir Fofana pour un rapport de l'IGE sans avoir à le déclassifier Khalifa Sall rapport bu ko tax a dugg kaso kenn déclassifié ko. est-ce que c'est pour rendre compte le peuple. mais bien sûr quand tu poursuis quelqu'un c'est du domaine du public. parce que yo, tribunal bu lay topp dañ la naan li ak li ak lii lañ lay toppee rapport Moko bind. Quand kay c'est rendu public les audiences sont publiques mm. les audiences sont publiques amul ben audience boo xam c'est privé tribunal ku mu neex dugg saal bu ko la neex toog fekkee audience sauf si le décide le juge décide d'en faire une audience privée les audiences sont publiques donc ça veut dire que tey jii nii bu amoon téeméeri rapport IGE yu nekkoon ci table président de la république bu dee ci téeméeri rapport yooyu dañoo ne diw ak diw ak diw nañ leen topp soxlawul muy déclassifier na ko jox directement procureur bu ko joxee on va les convoquer et on va les entendre bu ñu leen waree poursuivre ñu poursuivre leen. alors ñu dégg ñoom ñu ne balaa ñoo gouverner dara wala balaa ñoo commencer dara il faut ñu def l'état des lieux c'est-à-dire le point li ñu fi fekk. c'est tout à fait normal. rapport yi ñu génnee ko. non eh, rapport yi ak non non non non non attends attends ah. rapport yi ak état des lieux c'est différent. mais rapport yi ñu si épinglé. non bu nekkoon régime bi. waaw mais xam nga leen alalu non xam nga. Covid bi non état des lieux. c'est une chose tout à fait normale man tay ma euh, directeur général 5 TV hmm. état des lieux. té état des lieux hmm. des lieux la déjà tu es ministre tu me remplaces comme ministre nos passation de service IGE def y a un y a un document de passation que tu signes que je signe le document il dit Bachir Fofana li lañ ko joxone ci budget li lañu consommer consommé mo fi dess ministère bu Bachir Yoron, nangami bureau la bureau bu nek li mo fa nek matériel bi fi la tollu ñett auto la fi bàyyi ñaari auto la fi bàyyi ñaata auto nombre de car de euh, xam de litre de carburant restant nombre de litres de carburant consommé les yow bo ñoy yaay yaay xool ndax liñ la bindal ni ci rapport bi est-ce que c'est conforme avec li nga gis donc état des lieux man aw ci problème état des lieux ku ñëw bërepp noonu nga koy def kër sax balaa nga jël nga inspecté ko donc dire qu'on va faire l'état des lieux mooy géej gi am ndox. Hmm. parce que loolu la ñuy xaar si ñoom. maintenant l'état des lieux est différent des publications de rapports nee aujourd'hui les rapports de l'IGE si ñoom la dépendre ci président mu jël décret bu bëggee sénégalais xam lu ci ne mais bu fekkente ne jàpp na ni am na ñu ñu épinglé ci rapport yooyu nous ñu war ne poursuivre ci me la parce que l'IGE quand il finit de faire son rapport président est comme et le président en fait ce qu'il veut le président décide de faire ce qu'il veut des rapports de l'IGE maintenant comme nous avons tous ay rapports, IGE te am rapport la pédagogie par l'exemple voudrait qu'on commence par ces gens-là mais oui mais d'accord mais est-ce que ça veut dire que c'est parce que est nañ ko amut Tout nañ am na wala amul génne leen rapport bi Sénégalais yi jël gisal seen bopp. donc ñu ngi dugg si benn show boo ne. xamuñu non dama ne tudd nañ Aminata Touré tudd nañ Ami Mary Teuw Niane tudd nañ euh, Birima Mangara.